salaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de la sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo yi leen ko defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof. vidéo bi nag mooy nekk deuxième vidéo journée bi tey bii ci ngoon gi lay dugg la dugg nii 10 euh, heures pile lañ ko def en ligne euh, euh, beneen bi duggoon na ci bëccëg ay 4 heures mais bii tax ma def ko mooy dafa am benn contact ci Galsen Tube benn. abonné ci canal Galsen Tube boobu dama posé benn question question bi ma posé nag après maa waaye ko audio ma ne ko sa question am na solo tellement du ma si du la répondre ci whatsapp bi directement dama koy def vidéo def ci réponse comme ça ñeneen ñi mën see jàngiwaat parce que sûrement li tax mooy man sama bopp damaa posé woon question boobu dama question bi dama kaa posé woon sama bopp léegi su ma ko keneen posé kon cela veut dire am na ñeneen ñu koy posé ma ne ko nag bàyyi ma def ci vidéo comme ça. su amee ñeneen ñoo xam ñu ngi ko doon posé ñu mën see jàngale parce que ma la tontu si whatsapp man ak yow rek lay concerné te yaakaar naa ñu bëri mën nañ ci mën nañ ci jëriñoo tamit moo tax ma ne ko dinaa si def naa ko ay réponses mais ma ne ko il faut ma def ci vidéo comme ça nit ñi xam naa naa leen dina yaa sëgg fii di liir kii bi mais dinaa leen ko affiché à côté nii ngeen mën ko gis voilà léegi waa ji mi ngi tudd euh, Tanor ñaar la tudd Tanor Niang maa ngi koy remercier de passage quoi xam naa su seetaanee vidéo bi dina dina ràññee boppam waaw ah, mu bind message bu ne bonjour Big Boss comment allez-vous je salue votre travail que vous réalisez sur Galsen Tube en nous aidant à bien connaître les tenants et les aboutissants en matière d'administration de YouTube channel waaw ah, mu ne daal maa ngi lay nuyu daal di euh, gërëm ci li ngay def liggéey bi ngay def ci Galsen Tube di ñu wax yi nekk ci biir ak ci yépp daal yi nga xam ne moo aju ci li nga xam ne mooy YouTube mu dem mu mu teg ci cependant j'ai quelques questions jusque-là ont besoin d'être élucidés mu ne maanaam daal am na ay laaj yu ma bëgg laaj yoo xam ni maa ngi ciy sàkku ay leeral voilà avec tous les bons conseils que vous donnez et le nombre important d'abonnés que vous avez sur votre compte mu ne ginnaaw conseil yu baax yi nga yaa ngi koy joxe ci YouTube ak abonné yu bëri yi nga am ci sa compte bi te <laughs> xam naa sax man am yu bëri xam naa ko am ay cent abonné yu bëri la waaye boo xoolee canal TFM bi nga am nañ un million six un million euh, six cent mille un million euh, un million six cent abonnés li nga xam ne amaguma abonnés yu bëri voilà mu ne pourquoi est-ce que le nombre de vues de suit xam naa ne suit pas la bëggoon bind mu bind pas la même tendance man moo tax sa yi ngay am ci sa YouTube euh, ci sa vidéo yi toppul sa tendance maanaam sa abonnés yi ni ñu bëree am nga mille six cent abonnés ngay am ay 300 vies ay 200 ay 400 yooyu xam naa loolu la bëgg wax voilà léegi ma leeral point boobu balaa balaa may egg <clears throat> première laaj loolu man mi dama posoon question bi dama dugal ay dama dugal ay vidéo gis ne vidéo yi bi abonné yi demee bay egg ay 700 800 yooyu te defaat nga dugal vidéo mu am ay 100 cent 150 yooyu man a lii daal c'est pas normal parce que nit parce que bu fekkee da nga def canal ay nit ñi ñëw abonné naturellement maanaam yow. defoo publicité du laa yàlla na ma lool si affaire bi mu ne ma est ce que nekkul da ngay def publicité <laughs> Facebook wala kii ma ne ma noonu def ma def ma sax publicité loolu tontu ma ko mais ma tontu ko ko fii def ma publicité Facebook def beneen façon publicité maanaam canal bi Galsen Tube bi dama ko ubbi uniquement pour YouTube lu ma si xam ma wax ko ñeneen xam ko mun si jëriñu objectif bi loolu kese la maanaam am naa yeneen canal YouTube yoo xamante ni mënoon naa ci yem def samay canal di monétiser sama canal jàpp sama jàmbur mais damaa damaa xam ni. Euh, YouTube comme waxoon naa ko ci vidéo bu ma njëkk na ci canal bi YouTube nekk na loo xam ni business international la ñëpp mën nañ ci gagné xaalis léegi man maa ngi ciy gagné xaalis man Sénégal am na yeneen Sénégal yu ciy mais américains yi dañ ciy gagné xaalis mais dangay gis ñoo xam ne dañ kiy dañuy jàngal ñeneen ñi nan lañ ci gagné xaalis français yi dañuy da ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey dañuy jàngal nit ñi nan la ñuy gagné xaalis ci YouTube ma gis ni Sénégal nag am na ay youtubeur par exemple. chaîne dama leen jox rek chaîne yu mag yoo xam di ngeen ko xam am na ay benn benn yoo ay prix ay individuel yu bari mais dama leen jox chaîne yu yu yu gën a siiw 2STV seen chaîne bu yàgg la TFM seen bu yàgg la euh, par exemple euh, kii euh, Prince Art chaîne bu yàgg yëpp chaîne yoo xam yàgg nañ ñi yàgg nañ gañ xaalis ci ci ci li nga xam ne mooy YouTube am na beneen am kii Yaama Télé Yaama Télé xaw ma ndax xam nga benn site internet bu doon bi def ay théâtre la yàgg na trop voilà am na beneen boo xam ne tam xaw ma Sénégal info xaw ma Sénégal nan la tudd Sénégal TV xaw ma te waa ji ko moomoon dafa décédé sax bu yàggul yal na ko yàlla yërëm boobu tamit yàgg na ñooñu ñëpp dañ ko doon monétiser ñi ngi am xaalis si YouTube mais nan lañ koy defee kenn su ñoom du ko expliquer parce que business bu ñu def chasse gardée la maanaam affaire daal nañ ko xuumtoo nii su siiwee mën nam day yàqu déedéet fekk loolu imagination ku ku ku kiiw la maanaam imagination la boo xam daal. imagination ku ku buggul partager la daal ku bugg a xumtoo yëpp comme cuuju ginaare bu ñu àndee di amuñu dara ñuy wër nii ñëpp ñoom dañuy àndandoo groupe di wër di wër su benn gisee benn lekk rek boo jëlee day daw fële këpp làqatu fee day bugg lekk affaire ba mu jeex mu soog ñëw àndaat ci groupe bi loolu baaxul rawatina si YouTube nga xamante ni ni ma ko waxee ñiy def publicité société yi def publicité dañuy yokk ñi consommer internet dañuy yokk xaalis bi ci nekk ci dafay yokk kon ñi koy gañe tamit bu ñu yokkul di ko gañe YouTube seen bopp entreprise Google ñoom ñooy jël xaalis bi téye ko vaut mieux kon sénégalais yi nekk ci ni ci américains yi nekke ni ci français yi nekke ni ci espagnol yi nekke surtout surtout dëkk yoo xamante ni léegi ñoo ci gën a efficace sax que européens muy euh, waa Inde indien ak pakistanais yi waaw ñoom fu mu nekk nii si kanam tuuti ak euh, chinois yi indiens yi pakistanais yi ci kanam tuuti ñooy raw européens ak américains yi ci internet parce que ñooñu dañ ko jël au sérieux léegi nag man ne nag man damay def samay vidéo pour li ma si xam ñeneen xam ko di mën di gagner voilà maa ngi sama yeneen canal YouTube yoo xamante am nañ abonné yu bëri euh, canal bi utiliser wu ma ci publicité Facebook loolu moom lu wóor la utiliser ma ci dama ko ubbi nag naturellement boo xoolee canal man xam naa ni ñuy ubbee canal bu am maanaam li ñuy defee business abonné ci internet li ci aju bokk du ma ne xam naa lépp moom. waaye lu bëri ñu defee nu ah, ñuy defee ay affaire ay truc ci ci ci Europe xam naa ko nu ñuy def ay truc te kenn du la jàpp xam naa ko waa waane dafa am loo xamante ni soo soo koy def da nga koy def sérieusement boo bëggee mu normal sérieusement voilà moo tax man lii ñuy def sérieusement laa leen wax ci canal bi canal bi ma ko ubbee itam dama ko ubbi naturellement bàyyi ko muy demal boppam rek ku partage xanaa dinaa def su ma defee vidéo naa ko partage ci réseaux yi pour nit ñi gis ko mën a mën am naa benn canal boo xamante ni am naa ci vingt quatre mille abonné ci une semaine lu tax parce que dama ko defal publicité Facebook waaw ah, kon gaal seen tub su fekkoon ba dama ko dama bëgg mu am abonné yu bëree bëri bëri xam naa fi may jaar eh, ba mu am abonné yu bëri voilà parce que am na système boobu bu ma ko defoon ci Facebook mën naa dépenser tuuti xaalis te mën naa atteindre ay junni junni nit am abonné yu bëri taf taf taf taf loolu xam naa nu ñu koy defee mën naa ko mais préféré wu ma def ko dama bëgg nit ñi abonné mu nekk ñoo xam ni parce que su ma ko defee dinaa toucher ñoo xam ni amuñu motivation wu YouTube loolu seen bëgg-bëgg intéressé wu leen peut-être dañu abonné après mooy loolu dama bëgg ay nit ñoo xamante ne dañuy gis vidéo yi da amal solo dañuy abonné non seulement dañuy abonné kese de mais dama bëgg ay nit ñoom dañuy pratiquer maanaam dañuy seetaan vidéo yi dañuy gis dañuy pratiquer dañuy ubbi canal YouTube dañuy defar ay vidéo dañ ko siy dugal après affaire bi dem décoller ñu mën ko monétiser voilà chaque jour damay jot retour yoo xam ne retour yu retour yu sedd sama xol yoo xam daf may motiver may gën defar vidéo bis mu nekk dinaa jot ci whatsapp bi ay message yoo xam ne li ñu ma ne ah man sama canal monétisation askan wi nañu ma démb jot naa sama lettre démb jot naa sama lettre bërki démb man loolu mooy sama fierté si gaal gaal seen tub gaal seen bi dëgg dëgg dëgg du mu am 1000 abonnés 4000 heures mu monétiser ko donte am romb na 1000 abonnés 4000 heures tuuti moo si des maa ngi 3000 et quelques heures tuuti moo si des su matee dinaa ko demander monétisation monétiser ko mais objectif bi ma koy ubbi nekkuloon monétisation am naa yeneen canal YouTube yoo xam ne monétiser naa ko moo tax objectif Galsen Tube du woon pour maanaam sensibiliser Sénégalais yi la pour ñu xam ne bi mi ngi fi mi ngi fi nekk te te te kenn moomu ko ñëpp ci mën seen entreprise te na ñoo xam ne ñi ngi sommé bëri nañ ci dëkk bi ñi ngi sommé am nañ téléphone euh, yor nañ téléphone yoo xam ne ay smartphone lañ ñoo ngi euh, nu mu tëddi connecté wu ci internet 500 francs wala 1000 francs wala 2000 francs ñu am jënd ko paas nekk ci Facebook bi di cate nekk ci ay euh, beneen boobu. nga xam da ngay filmer sa bopp moom moom day dofloo nit ñi nu mu nga xam ni da ngay perte sa sa sa sa données mobiles yi si zéro lay dem ba pare en retour du la indil dara lu am solo léegi nag ma ne naa jàngale nit ñi di xëy na dinañ seetaan ku ne ku ne kay xaxa bëgg lu baax soo seetaanee di nga mën a jël sa sa jël sa temps bi nga doon perte ci réseaux sociaux yi utiliser ko di ko def ci loo xam ne après long terme di ko mën monétiser yaa xëyti xaalis dafa ju mën jóge ñëw si yow waaw objectif te man atteindre naa sama objectif lu tax parce que wax naa la comme chaque jour wala ñaari fan wala ñett fan yu nekk dinaa jot message yoo xam message yoo xam ni message yu positif yu ñëw la mais kenn kase su ma ko atteindre koo xam ni seetaan na samay vidéo ubbi na canal def na ci ay vidéo dem na ba monétiser ko ba ne ma man monétiser naa grâce à sa vidéo yi may seetaan jeex na man sama mission jeex na parce que loolu objectif loolu naa atteindre ay nit ba def ko kenn kase bu ko defee symboliquement man loolu doy na ma seet na sama xol waxuma laa nag ay nit ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi koy seetaan ñu ngi ciy gis seen bopp te li ma lay wax man ni pratique la waxuma nekkuma fii naan la affaire bi nii la affaire bi nii la affaire bi nii la de non non man jàngalewuma grammaire jàngalewuma histoire jàngalewuma xam nga histoire moom ñi koy jàngal université école yi ñoom ñëpp kenn ci fekkewul bi muy am liñ lay wax dañ lañ ko wax doomu ñu la koy waxaat de bon foi nag lañ koy waxee parce que jàngal nañ ko gëm nañ ko man li ma lay wax dama naan la mi ngi defal cliquer fii génnal fii duggal fii duggal fii jëlal sa téléphone ak sa ordinateur nga def nga gis da ngay gis jeex na voilà question boobu ma tontu ko muy loolu moom pour mu xam ni non def ma publicité Facebook te tam vidéo yi amul vie yu mu war a bi ma ko analyser comme sànq doon naa leen ko wax dama gis ni YouTube dafa am lu mu wax ci loolu YouTube lan la wax comme ñoom ñoo moom site bi ñoom li ñuy wax la ñuy jiital YouTube dañ ne boo amee ay abonné par exemple am nga 100 abonné waaw barem bi foofu lañ ko <clears throat> barème bi foofu lañ ko jëlee pourcentage boo amee cent abone video vidéo boo dugal balaa muy am vingt quatre heures minimum cinq pour cent war nañ ko seetaan ci say abonnés loolu muy tekk téeméeri nit yoo jël juróomi nit war nañ seetaan sa sa vidéo waaw cent abonnés yi ne war nga ci am cinq vues comprendre nga voilà boo amee mille abonnés war nga am cinquante vie loolu c'est logique loolu la YouTube nga xam ne mooy barème bi nga xam ne mooy soo ko wàccee rek. war nga defaraat say vidéo xam ne am na lu doxul voilà su fekkee mënoo atteindre cent abonnés nga am ko nga dugal vidéo am ay deux vues wala benn vue wala zéro vue am na lu doxul soo amee mille abonnés nga dugal vidéo amoo cinquante vues am na lu doxul voilà YouTube moom noonu la ko calculer parce que lu tax ma wax loolu parce que ñi abonné sa canal yëpp nekkul am na ñoom dañuy abonné mais canal bi lañuy bañ mu rëcc leen amaguñ temps temps temps suivre la wala dara mais bëgg bu ñu bëggaatee ñëwaat ci canal mu yomb la moo dañuy abonné bàyyi noonu am na ñoom dañuy abonné parce que dañuy gis li ngay def am na solo ñu bëgg abonné pour soutenir canal bi mais après duñ ñëwaat di seetaan say vidéo mais dañ lay abonné pour soutenir la ñooñ nag après boo dugalee vidéo yi ko gis voilà loolu da ciy joué deuxième effet bi ma gis boo xam ne man moo ma concerné personnellement mooy vidéo yi mun naa ni 70 pour cent wu ñi abonné ci canal wala ñuy seetaan vidéo dañuy télécharger vidéo yi waaye wax naa ko loolu ma ne ko vidéo yi su ba dañ koy télécharger ma ne ko parce que ñu si bëri dañ ma koy wax dañ nan ma ah sa vidéo yi de man dama ne la est-ce que seetaan nga vidéo sàngam parce que nii nga may laaj waxoon naa ko ci vidéo yaa am parce que yaakaar naa seetaan naa ko man sa vidéo yëpp téléchargé naa ko ñu si bëri xam naa comme yéen ñi may dégg yéen may dégg si bëri dañ comprendre si wala daal moo xam wala mu jékki-jékki ñu supprimer ko lii dal seen xel mooy koy téléchargé seen ay téléphone garder ko foofu léegi nag nit ki su téléchargé léegi sa vidéo garder na ko si téléphone am mën na ñëw seetaanaat vidéo bi mille fois du la indil mille vues lu tax parce que benn vue la la parce que dugal nga vidéo bi xool na vidéo benn yoon dugal na ko ci benn application téléphone am téléchargé na ko jeex na léegi nag moom téléphone la yor même bu nekkee hors connexion di seetaan vidéo yi chaque jour mu ñëw seetaan bu bëggaatee dara ñëw seetaan vidéo bi loolu du la indi la ci ay vues sa abonné la mais vidéo boo dugal benn yoon la koy seetaan des fois lu raisonnable la parce que man mi dama koy def léegi-léegi mu am vidéo solo ma bañ vidéo bi rëcc ma parce que canal YouTube bi tam on sait jamais xamoo borom mën na jékki-jékki tëj canal am YouTube mën naa ko comprendre ma ne ko nag loolu mooy tax des boo boo canal defee canal buy jàngale des fois ci yenn thèmes yi yenn façon vie mën nga ko bañ am parce que ñu si bëri koy télécharger te gars yi buñ vidéo buñ télécharger duñ ñëwaat ci internet di ko seetaan ci loolu dañuy ko foofu ma ne ko loolu tam da ciy troisième euh, affaire bi nga xam day joué ci loolu par rapport ak abonné yi ngay am ak vues yi day nekk ci tématique bi ngay yëngu tamit su fekkee da ngay def ci thématique bu buzz tey di nga am ay vues yoo xam ne sax mën na ëpp pour pourcentage logique bi nga xam ne moom nga am si abonné par exemple tey mën nga ubbi canal canal bi am euh, par exemple cent abonné nga dugal benn vidéo boo xam ne dara luy bës jamono bii la ñu koy coow nga def ci benn vidéo bu jaar yoon def ci titre bu baax dugal ko ci internet bi def urgent xam nga bu déggee urgent moom bu ko xasee lire dañuy bu ko xasee lire ci titre vidéo dañuy defee ne ko bu ñu ko seetaanul dara da leen di da leen da leen di leen di manqué wala raté nañ dara affaire grand place la quoi voilà. mën nga am si vidéo boobu dix mille quinze mille vingt mille vues ci ci une semaine wala trois jours wala ci vingt quatre heures te yaa ngi am cent wane lool nga kon. proportion boobu kon kenn du ko calculer noonu parce que nit ki am 100 abonnés dugal benn vidéo buzz vidéo bi def une semaine am 15000 vues 15000 vues te yaa ngi am 100 abonnés 100 abonnés ñoo la am 15000 vues ñaata di seetaan ko te abonné wuñ sa canal parce que canal intéressé la ba mais dañ doon wër lu tolloog tendance bi nga def buzz bi nga def moo leen intéressé moo tax affaire yi des fois amul logique si boo koy calculer noonu TFM da ngay sañee am nañu 1 million 1 million 6 mille abonnés TFM. dañuy dugal vidéo vidéo Youssou Ndour bi ñu bi ñu dugal euh, bi ñu dugal euh, mu doon way mooy yi muy def par coup du bi ma si mujjee gis bi ci ëpp vie bi mu dugal si si mujjee dugal ci ci vingt quatre heures yi moo ngi am dix après dix mil xaw a quinze romb mille vie ay quinze mille loolu yaakaar naa léegi boo ko ak ñoom un million six mille abonnés ñu am boo xoolee un pour cent ci abonnés yi ñoo seetaan vidéo bi am na dix mille vie de dix mille vie ni am mu am ko te un pour cent ci ay abonnés ñoo seetaan. eggul sax 5 pour cent waxuma la yeneen vidéo yi nga xam ay 1000 vues lay am ay 2000 vues yi ay 5000 am na sax seen vidéo yoo xam ne ay 300 vues yi ay 400 ci ci ci ci ci canal boo xam dafa am 1 million tax parce que dañuy traité thème général am na ñoo xam dañoo abonné parce que benn émission moo leen fa intéressé am ñu abonné parce que benn animateur wala kenn koy def émission moo leen intéressé luñ ko seetaan moo boobu dafa naqaree calculer quoi pour nga xamee ko noonu. léegi damay ñëw ci beneen question bi nga xam ne defaat na ko ci ci commentaire bi muy ba léegi Tanor Niang bi mu defee loolu après mu def li nga mu def n'utilisez-vous pas Facebook ats YouTube ads euh, pour augmenter votre audience xam loolu leeral naa ko loolu moom defuma ko su ma ko doon def te dama ko daan def su ma ko doon def sax dama koy def damay utiliser publicité Facebook ak publicité YouTube parce que YouTube bañu ko bañu ko utiliser publicité. normal muy publicité Google wala publicité YouTube wala publicité Facebook pour nit ñi ñëw ci sa canal di seetaan say vidéo a abonné loolu ma xamal leen ko YouTube bañu ko YouTube li bañ nga dem jënd ay abonné site yi gonflé abonné nga xam ngay fay par exemple quinze mille francs ñu la dama lay jaay mille abonné ci ci une semaine mille abonné ci vingt quatre heures fay leen quinze mille exactement ngay sa sa canal mille abonné yi wees abonné ci yooyu la YouTube bañ mais nga fay publicité Facebook normal parce que publicité Facebook da ngaa wan rek ñu nekk biir Facebook li ngay def. bu la neexul duñ cliquer ñëw abonné forcé woo kenn te léegi nag da ngaa jënd ay abonné bokk moo tax bokk loo nga ngeen xamee ko noonu quoi. léegi mu ñëw fii pour monétiser votre chaîne YouTube votre thème est-il assez advertiseur friendly maanaam mu laaj ndax thème bi nekkul dafa thème dafa ndax thème la boo xam ne ànd naag ma ñiy fay publicité ci YouTube ndax thème bu ànd ak ñoom ñoom liñ bëgg a publicité la. ñiy def publicité ci ci Facebook choisir ñu ay thème ñoom ñi ngi choisir ay sujet sujet yi ngay traité mais thème bi ngay yow mën nga def thème bu ne mais si sa biir si sa biir euh, thème yi sujet yi ngay choisir pour sa vidéo nga bañ wax ci affaire ay alcool affaire ay comme yooyu mooy lim naa ko bëri ci ay yenn vidéo ay sexe ak ay yoo xam tegginawul ay nudité ay violence ay yooyu yooyu lañ dul dawal seen publicité parce que nekkul ni bu fekkoon euh, dafa am façon pub façon vidéo yoo xam ne yooyu kese ñu am publicité kon nit ñëpp yooyu yoo la ñuy def te ko boo defee publicité Facebook monétisation dootu am sens mais mi ngi mel ni télé booy seetaan est-ce que bu ñuy publicité par exemple benn couche bébé xam nga bis bu nekkee seetaan TFM ñuy def publicité couche bu ñuy publicité couche bébé mag ñi toog di seetaan publicité bi est-ce na leen intéressé wu leen pour bébé yi la est-ce que bébé yi tax ñuy publicité couche yi bébé yi mën nañ jënd couche. waaw question boobu laa lay posé waaw bébé yi tax couche couche bébé ñuy publicité TFM bébé yi tax ñuy publicité couche yi mënuñ jënd mënuñ jënd couche amuñu luñ jëndee couche mag ñi nga xam ne ñu ngi seetaan publicité yi est ñoom dinañ utiliser couche yi déedéet kon léegi lu tax ñu def publicité couche def ko si télé c'est ça la question après mu ñëwaat ci beneen question mu ne. Quel channel faut-il pour attirer les advertiseurs Car ceux comme les vidéos games, bricolage, domaine de prédilection, comédie, etc. ne semblent pas attirer les advertiseurs. comme mooy comme tontu naa léegi rek loolu moom ça dépend ci ci ci ci li ngay wax li ngay si maam mu ngay traité si togg mu ngay traité si bricolage mu ngay traité si maquillage mu ngay traité si santé mu ngay traité si comédie mu ngay traité si buzz. loolu yëpp dina am publicité parce que dañuy fay publicité dafa am ñoo xam ni ñaari groupe euh, société ñooy fay publicité ci li nga xam ne mooy euh, mooy euh, Google de manière de manière précise li nga xam ne mooy mooy YouTube dafa am ñoo xamante ni publicité globale la ñuy def dañuy publicité loo xam dañuy bëgg atteindre ñëpp dañuy fay xaalis bëri publicité bi daal na lañ ko yóbbu dawlal au maximum parce que dañoo bëgg ñëpp gis ko voilà seen yoon ci yow kan nga na nga ko gis rek. ñoom parce que li ñuy publicité dafa nekk loo xam ne mondialement la war a dox ñu bëgg ñëpp gis ko waaw amul xale amul mag amul leen parce que produit bi ñuy publicité mooy laaj loolu. am ñeneen ñoo xam dañuy def publicité ciblée par exemple tey mi ngi mel ngay jaay ngay jaay benn formation formation bi ngay jaay par exemple formation bi il faut mu nekk ci ngay def par exemple nga nekk médecin par exemple tey defar benn centre de formation boo xam ne dafay def ci affaire médecine. léegi nga bëgg a dem di ko def publicité bi nga dem di ko def euh, ci li nga xamante ni mooy internet Facebook wala YouTube soo defee nañ publicité boobu général na ko ñëpp gis da ngay fay xaalis bëri te lu amoon njëriñ da ngay def publicité ciblée mooy daa am ay tibu personne spécifique yoo xam ne ñoom nga soxla ñu gis sa publicité parce que xam nga ni ñoom kese ñoom la affaire bi di intéressé ñu def formation médecine parce que école formation médecine ko bi nga yooyu te yooyu mën def ci internet. ñooñu boo leen ciblé avantage mooy bu ñu gisee sa centre de formation daf leen di intéressé parce que domaine la boo xam ne dèjà ñu ngi ciy ñi ci maanaam branche yi ñu choisir di ko jàng branche yooyu dafa nekk loo xamante ni médecine ñoom da leen intéressé parce que loolu lañu suivre suñ gisee sa école de formation mun nañ ñëw laaj ci information xool ba xam adapté na ak ñoom formation bi ñu bëgg def comprendre nga dama la ko résumé noonu daal maanaam ñooñu dañuy ciblé parce que dañuy xam ni seen ñëpp nekkul ñëpp soxla li ñuy def dafa am rek ay nit yu ko soxla dañuy fexe ba ne ne internet wala YouTube wala Google wala Facebook fexe ba wanal ma sama publicité ñii kase bu ko defee parce que xam naa ñii la intéressé boo ko wanee ñu bëri damay fay te intéressé wul ñëpp waaw ah, parce que de formation soo ko defee bëgg ko woon ñëpp ci internet da nga fay xaalis bëri te du ñëpp la intéressé voilà noonu la boo yoree garage mécanique noonu la booy def publicité tey da ngay ciblé ñi am oto voilà noonu ngay def boo ciblé ñëpp ñu di am ñu ko gis amuñu oto dañ ku cliquer xool. di nga di nga di nga fay parce que nit ki liggéey na ko te kooku du ma sa indi oto parce que amul oto wala ngay ciblé ñu oto loolu mooy loolu moo tax euh, publicité internet ñëpp dinañ si gagné dafa am ñu def ñuy def ciblé nag moom ñun ñëpp duñ gagné seen i publicité waaw selon thème ñoom yi ñu ciblé ñiy def vidéo ci loolu kese ñooy mën a gagné parce que ci tem yooyu la seen publicité di affiché ñi nga xam nag produit yoo xam ne global la par exemple kuy def publicité sunguf meew moom wala koy def publicité meew wala beurre kooku moom du ciblé. parce que ñëppay lekk ñëpp lay bëgg ñu gis ko même xale bu ndaw bu ko gisee dina gis ni beurre bi kii na bu subaa yaayam ni mu ne ko noo beurre sangam laa bëgg voilà mag mi bu ko gisee bu demee supermarché bu dem marché di nduggi wala boutique ba bu gisee ñaari beurre bu gisee bi ñu doon publicité li si ëpp boobu lay jënd parce gis na ko si télé bi loolu la affaire bi di di fonctionner am na benn si NBA yi dinañ ko jàng bu di amee si yéen ñoom jàng nañ publicité ci affaire NBA dinañ am na eh, benn société bu tuddoon euh, Kodak yaakaar naa sax mi ngi am ba léegi peut-être Kodak xëy na ñi nga xam ni maase nañ ak man wala ñu mag ma dinañ ko xam euh, ñooñ dañ doon jaay ay <laughs> pellicule pellicule bu njëkk ba appareil photo nga daan jënd wala ñi photographe yi daan nekk euh, kiiwu photo yi daan nekk ci kii ci koñ yi ñoo ko daan yore ak ñi ko daan jënd tam mun nga sa daan jënd daan nañ ko jaay léegi da am pellicule dugal ko si biir boo photo ba pare pellicule bi ngay jël yóbbu ko labo ba ñu laaveel la ko sottiireel la ko mu nekk ay photo léegi nag bi appareil numérique yi amee ñoo commencé daaneel pellicule smartphone yi ñëw boole appareil numérique yeeg ancien appareil yeeg pellicule yeeg yëpp baxañ leen teg fële ci poubelle voilà. léegi États-Unis dafa amoon benn société bu ñu naan Kodak presque moo ëppoon doole sax si monde bi fii ñëpp ko xam Kodak jamonoy appareil photo yu yàgg yi léegi ñoom bi ñu bëggee léegi occupé marché li nga xam ne mooy marché pellicule yi dafa am stratégie marketing bu ñu def nan lañ def. dañoo jël ay dañoo dem commandé ay appareil photo yoo xam ni baara gaam la maanaam appareil yi du yoo xam du yàgg mais appareil yi ñoom ñëpp pellicule lay jël parce que ñoom pellicule la ñuy defar defaruñu appareil euh, photo mais pellicule la ñuy jaay ñoo ci mënoon ci monde États-Unis ñu maye ñëpp ay pellicule ay ay kii astafurlah ay appareil appareil yi moom dañ koo defar pare maye ko gratuitement nit ñi ku nekk ñu may la appareil defal la ci may la benn pellicule léegi nit ñi commencé ku nekk yor da nga daan dem di photo ji léegi nga war yor sa appareil mën a photo sa bopp léegi ku nekk photo sa bopp di photo photo photo ba pellicule bi jeex pellicule bi jeex nga dem après tirer say photo léegi ëllëg am na leen loo bëgg foto photo <laughs> nan ngay dem defi yaa ngi appareil bi pellicule benn pellicule lañ la mayoon léegi lan ngay dem defi boutique ma ngay dem dem jënd pellicule Kodak seen business foofu lañ ko basé ba développé ko ba mondialement ñu occupé marché mondial bi ci wàllum pellicule li ñuy ràbb ci avant pellicule di xeewi li ñu ciy ràbb ci ay milliards yàlla kese moo xam moo xam nu mu toll. parce que xam nañ ni ki amul appareil boppam du jënd pellicule photographe ba lay dem rek photographe photo ko photographe bay jënd pellicule ñu fexe ba nit ñi am seen i appareil bopp yu jël pellicule comme oto bu essence la rek xam nañ ni pellicule bi moom mooy tax appareil bi dox léegi appareil bi bu ñu la ko bu ñu ko jëndee woon par exemple ñoom 1000 francs may la ko pellicule bi ñu koy jaayee 500 boo jëndee ay 10 fois pellicule si ñoom rek. xaalis xaalisu appareil ba dugg na voilà atteindre nañ seen investissement génn na ba ñu rentabiliser ko ba nekk ci bénéfice waaw c'est que commencement bi yooyu loolu loolu marketing au niveau la rek voilà du lu du lu yomb nga xamee ko noonu waaw te marketing dafa monde bu yaatu la tamit boo xam ne daal voilà lépp marketing la sax boo seetee waaw boo seetee parce que àdduna bi lépp lépp marketing la léegi ñu ñëwaat ci beneen euh, beneen kii bi mu wax. mu ne moi j'aimerais bien me lancer dans l'activité je suis un peu sceptique je dis encore par le biais de vos vidéos et autres mu ne daal maanaam bëgg na ci lancer wu waaye daal mi ngi hésité xam naa dina lancer sax am na yeneen message bu fii parce que comme dafa privé bii waxoon naa ko wax mais yooyu moom après expliqué naa ko ba xam naa dina jël décision lancer wu ci parce que secteur bi muy yëngatu ànd na ak loolu mën na cee def business internet mën na cee def ay vidéo léegi mu ñëwaat ci ci suuf mu ne merci de bien vouloir éclairer ma la pensée par rapport à ce business maanaam nga bëgg naa daal nga gën ma si jox ay leeral ma gën a xam business YouTube bi nu muy demee voilà te loolu moom comme li ma koy wax comme li ma wax ñi seetaan vidéo bi ñëpp bouton bi gis nga bind fa Pape Mor Lo Galsen Tube boo ko cliqué di nga dugg ci canal bi su fekkee abonné boo xamoo ko canal bi di nga dugg ci canal boo duggee ci canal bi nga xool ci kaw da ngay gis fu bind accueil à dañ bind vidéo à côté playlist à côté communauté à propos nga xool fi ñuy bind vidéo nga cliqué ko vidéo yi da def benn liste waaw bi ñu njëkk dugal mooy nekk suuf bi ñu mujjee dugal mooy nekk si kaw soo amee temps nag li gën boo fekk ubbekoo canal YouTube nga jël sa temps nga seetaan vidéo yi daa boo ko defee li mu lay jëriñ mooy day tax YouTube ni muy fonctionner yëpp di nga ko comprendre voilà voilà bu ko defee du nekk affaire cuuc càpp quoi léegi ci suuf mu def en créant une chaîne où tu de la pluie et du aussi I wonder how adversaire are going to be enters on the page maanaam mu ne mu def ma daal eh, ni gis na daal maa ngi wane ay mooy top secret lundi xam naa yi may def noonu gis naa wane ay chaîne yoo xam ne dañuy def ay vidéo yoo xam taw rek moo si génn ak chaîne boo xam ngay def vidéo yoo xam tàkk-tàkk rek moo si génn léegi daal moom dafoo jaaxal daal loolu nan la mën a intéressé daal ñuy def publicité voilà loolu xam naa waal naa wax ci question bi wax ñiy def publicité ñoom eh, quatre-vingt eh, kii cinquante pour cent yi thème bi li nga yëngatu nii li leen ci intéressé bu mu nekk affaire violence parce que loolu duñ ci dugal seen publicité affaire ay euh, publicité ay alcool ay tabac affaire ay sexualité affaire ay violence maltraitance voilà affaire yooyu daal thème yooyu daal boo boo ko boo ko deful cinquante pour cent ñi def publicité loolu loolu moo leen intéressé boo deful ci thème yooyu sa vidéo bi nekkul moo leen intéressé de sa vidéo bii nii intéressé wu leen est ce que xamul leen intéressé seen publicité biñ ciy teg kay seetaan vidéo bi lañ bëgg mu gis ko mais sa vidéo bi support la rek intéressé wu leen waaw vidéo bi comme ñoom bu fekkee nag da ngay wax ci violence bëgguñu ci def publicité di ko sponsoriser yow nga ci am dara ñu lay gën a motiver ngay def ci vidéo violence loolu moo tax bëgguñu koy def ci thème violence wala yu demee noonu ak yeneen yi daal yi nga xam YouTube da koy bañ mais bu dee comme mun nga par exemple filmer mur bi rek wala tableau tableau tableau bii ngay si mu naaj te caméra mu filmer ko ma bind ci 1 ma def ci benn vidéo une ko def. am na ñoo xam ne mën nañ toog na ko nii di ko xool seen yoon neewu si waaw parce que nit ñi li nga xamul mooy nit ñëpp meluñu kom yow façon nit ñëpp am ci monde bi ku nekk ak say hobby waaw ku nekk daal am na affaire yu sew yoo xam ne daal da nga ciy nekk te sax yow mënoo ko expliquer am na moo tëddee noonu gis nga top lundi bii di ñëw incha allah vidéo top secret lundi bii di ñëw dinaa la woon benn yëfu dof boo xam ni tubaab bi dañ koy def moom laay def top secret loo xam ne yow ñëpp mën na ci def vidéo comme moom ni comme vidéo taw vidéo tàkk-tàkk ñoo yem benn affaire dof boo xam ni te loolu kat er, tubaab yu bëri mën nañ koo jàpp ci internet di leen yii di ko seetaan te loo xam ni la amul benn xorom seen hobby la loolu mënoo si dara waaw internet mooy fonctionner noonu parce que ñuy publicité comme li ma la rek ñoom dafa am sujet yoo xam daal boo ci traité wul leneen loo traité li ngay traité seen yoon newu ci loo mun munti wane mën na ci def seen publicité voilà kon vidéo tay bi fii lañ koy yemale ma leen sant leen gërëm ci seetaan bi tey nag du woon ay vidéo wane dara tips wala dara mais pour ngeen pour question la woon boo xam ne bëggoon naa ko traité en vidéo pour ñu bëri xamaale ci loolu quoi bu xaale ci parce que idée principale bi mooy rapportu abonné yi ak nombre de vues yi waaw loolu la laal bëggoon daal mu def ci ay leeral li ci des nag na commentaire la boo xam ne ci affaire question bi la la jëm ah, ma ci gërëm bu baax ki am xam ne mooy tanoon tanoon envoyé woon li nga xam ne mooy question boobu ma ne koon nag bàyyi dinaa ci def benn réponse man sama bopp dama ko doon laaj après ma trouvé solution bi ma bàyyi noonu mais comme moom laaj na ma ko ma jàpp ñeneen na ngi koy laaj kon baax na tam leeral ko ñeneen tam xamee ci si seen nombre de vues rapport bi ak seen euh, abonné yi ñu xam ni bu yéesul cinq pour cent rek nekkul catastrophe voilà bu ko ëppee nag moo gën waaw plus muy dem 100 pour cent sax moo gën nga am 1000 abonnés soo dugalee vidéo am 1000 vues mu leer sa abonné yëpp seetaan nañ waaw mais nag euh, loolu c'est très difficile